voilà mbokk Kawtef Sénégal ñu ngi leen di nuyu kontaan bu baax a baax comme d'habitude rek euh, Ila Touba màggal de Touba la wax ñu ngi fii nag si kër euh, Askia Touré ñëpp xam nañ ko si suñu réewum Sénégal muy suñu papa di suñu nijaay euh, mu accordé ñu nag li nga xamante ne mooy interview bi donc na dañ si dañ lay jaajëfal bu baax ba pare di la nuyu di la ndokkeel si màggal gi. alhamdulilahi lazi wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi lay delloo nuyu di la dalal di la ndokkeel ci jox ji nga may jox micro bi ci bis bii ak taataan yi nga xam ne yaa ngi koy taataan ci ma wax la as lëf ci sama xam-xam gu néew gi ci li waral lii kon ñi ngi lay déglu soxna si. voilà comme ni nga ko waxee li nga xamante moo ñu ci du leen lu màggal Touba 2022 gis nañ macha allah ni ngeen koy màggalee mooy yow ak ki nga xamante ne mooy sa soxna nit ñi di ko rafetlu nit ñi si bëri itam di jóge dëkk dëkk gox ak gox ngir ñëw teewe lu ñu mel boo leen di jublu si màggal ban sentiment ngeen di am bu màggal di waaj a ñëw. xanaa sentiment wu mbégte nag ndax euh, euh, nee na soo defee examen ba ñu ne la tu as la plus grande distinction wala am nga loo xam ne kenn mosu koo am euh, yëg-yëg jooju ngay am dafay mel ni da ngay sax mel ni dañ lay woote kenn wow ndax xol bu sedd li waral lii mooy keroog bi sëriñ bi di jóge fii ñu koy yóbbu muy dem Ndar ak xew kokki ay xew ndar ak njuuj njaaj ja ca ja am ba maam Cerno mujj demal boppam ba sëriñ ba ñëw ak ak ak yeeg wor ya nga xam ne jot na ko cee am ak yu mel noonu ak waxam ju jooj a ak karamani bi qul huwa allahu ahad rabbi walam yakul lahu kufuwan ahad yooyu yëpp ba yàlla indi yi muy indi ba ñu jël sëriñ bi yóbbu ko wante dama bëgg nga xam nag ne bi mu yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa kunta tabibi ba ma ñaan pour yàlla génne ko mu am benn wéetaay goo xam ne da koy mën a wéet wéetal ngir xettali xettali euh, euh, jaam yi tey jii tey jii magal gi dafa mel ne drapeau te lii moo war nekk fête national ndax lii mooy suñu fête ñun ndax xoola sëñ bi nee naa képp koo xam ni mos nga fee taxaw di yëkkati baatu laa la illallah jote nga ak tubaab bi ba tubaab bi gé boom la ak koo ak koo koo xalaat ñii ña nga bànjagara ñii Amadou Amadou Lamine Dramé xam nga ko ñii góor gi Mbaba Jaxu ñi ñoom ñëpp sëriñ bi rek moom moo ñëwaat ne Tourane Salim Tomi naax daal Tourane moo gañe te lu nekk dal na ko ci bisu suba gi sëñ bi loo xalaat lu métti jar na ko la ca gën a xëy na oyof ci nat si si si si yi ko dal mooy rabu ba saroon ci tànkam bi ci fii fii Ndakaaru yu baree bare bare bare bare waajuram ju baax jooju fekk ko fa jële ko fa ne ko isa sakartu jële ko fa euh, euh, euh, ne ko jógal nga dem liggéey li suñu borom su ne asirul mal abrar xii na asiru nga gis ne ne tubaab bi damm na samay xalima tuur na samay daa def na ma ay yëf ngir lan ngir ngir ngir bañ ma ma liggéeyal yàlla ci lii wante jël na gaal googu def ko ba mel ni kaaba ka ca man xoolal xeet yooyu nee na keroog ba ma yeggee Gabon ba ma ñëwee ba Cameroun juróom-ñaar fukki jigéen teeru nañ ma kenn ku nekk jox ma ñaar fukki kenn ku nekk jox ma ñaari butéelu misk yooyu yooñu ko tuuraloon ci géej ga mu ne ah ah dafa mel ni kon la may wuti maa koy am te yeggaguma yu baree bare bare bare bare bare bis boobu nag bis bu metti la ñu ko doon màggal si jamono sëñ Modou Moustapha naan ñëw gi la ñuy màggal mooy bi ma demee ba am ndam sëñ Fallou wëlbati waat na déedéet keroog bi muy wuti ji ndam waaw looloo jar a màggal mooy bis boobu nag bis bu ñu koy sonnalee bis boobu la tàmbalee di am di ràngoo ay teraanga ay mbégte ak yu mel noonu bis boobu moo waral mbooloo mi bàyyi seen soxla ñëw fii moo tax mbooloo mi bàyyi li ñuy def ñëw daje fii moo tax kenn ku nekk su xewee ah, ah, nga bàyyi sa lépp nee na daal sama bis bi ah xaw ma ni ah, ndax ndax am ngeen ci yëg-yëg wante ñee nekk bërzaq wala dañu xam ne tey jii mooy sama màggal gi. mooy sa màggal waaye li nga xamante ni itam ñu bëri dañ koy wax yaa ko doon sa biir kàddu bis bee ko laaj ba tax da ngeen di berneel di dalal eh, mbokk julliteeg taalibe yi nga xamante ne ñoo fii teew fii nga xamante ne moom mooy sa sanc mu mel ni ne rek ñi si bëri dañ naan eh, famille Touré dañuy faral di def yi nga xamante ne mooy dafay ëpp waaye gis nañ ni tam chaque année rek day gën a yokk mbooloo mi di gën a bari ngeen di gën a yokk li nga xamante ne mooy seen loxo est-ce que day firndeel ni eh, chaque année rek loo si def rek wala sëriñ Touba rek dala koy fulal. Euh, am na ñoo xam ni amaana ñoo xam ni dañuy jël seen alal def ko ci gumbe ñu def ko ci ay ay xurafaat wante man daal xam naa ni man mii Mouhamed euh, ñaari ñaari yitte laam ñaari programme mooy màggal ak gàmmu mooy sama wareef man aw ma beneen bëgg-bëgg euh, doo ma gis yooyu yëpp ñaar yi daal mooy sama yitte te dina jaral na ma lu nekk nit kii wax day dafa mënul. wala mu am wala mu bëgg def mun na ko def wala sax ngëm-ngëmam du dëgg wala muy wax ni lii la te du loolu ni daal soo nekk si dara da koy feeñal euh, te sooy feeñal te euh, yaakaar naa ni nee naa la sànq lii dafa war a nekk dafa a nekk euh, quatre dafa war a nekk suñu fête national ndax ndax ndax ndax lii lii lii da raay ju rëy lañ sëriñ bi indil tey raay ju rëy a rëy rëy lañ pourtant magam jo mbokkam mu baax ba Sidi Hadj Malick waxoon na ko ah ya laa ikraa fi diini qad tabayyana rushdu min al-ghayyi fa man yakfir bi taaguut wa yuminu billahi faqad istamsaka bi urwatil wusqa laa anfisama Allah wallahu samiun alim mu ne ko déedéet wante wante kii Euh, alaaji bàyyi ma liggéey rek ñoo ñu jëriñ yax ndax ñoo bokk maam maam maharam xam nga yooyu yu amoon la ci si xamoon na métit ba mais xoolal ndeysaan mbokkam ma ma ngi koy xañal ba ñàkk ñàkk bañ a ñëwaat mbokkam ma ma ngi koy bëgg ma ngi koy fekk ndax mbaax ga ak xam-xam ga ak dayoo ga wante mu ne moom day dem rek yaa ngi may dégg yooyu yëpp su amee euh, ba ñu am lu ñu mel nii loolu lii lii de moo gën xanaa ñu naan ña ngay dem di defi lu bokkul ak la ñu war a def gis nga màggalu sëñ Bàmba gi ndokk ba mu ca tàbbi ba ma ndokk ba ma ci doonee dara dinaa koy màggal ci nu ma neexee. may wax nga dolli. xam nga màggal gi xam nga màggal gi feet la du ay yii yëpp bu feet ah yu ay yi ñuy wax yëpp amul si dafa ni eh dafa leen ma feet wane leen seen mbégte ci sama lii la wax ma ne maa maa koy ma koy wane wante nag fekkee ne yàlla daf la dénk soxna soo xam ni euh, jigéen ju nee na góor gu baax ku nekk am na soxna soxna su baax ku nekk si wetam ndax xam nga ni soxna Khadija keroog yonent bi saa sam naan zammiluu nii dasuru nii fekkoon ni amuloon soxna su baax kon du kon dina doy waar kenn ku nekk rek bari nañu ci àdduna soo ko seetee day bare da ngay gis chaque jour yu mel noon di am ci àdduna mais fekkee man yaa daf may koo xam ne man bëgg naa ko te man ma jaral ko lu nekk si àdduna ah te moom fexe naa ba bëgg a bëggam ah, ah, di di di di sëriñ tubaa donte ni sax sëñ Ablaat mooy sëriñam ndax moom moom ñoom moom dafa judd suñu famille ñenn am nañu tijaan. daa viré ndax yow. ah déedéet moom moom moom ñoom seen famille amul sax tijaan ñoom ñëpp murid la ñu ah amul tijaan seen famille wante it dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa bëgg sëñ Abdou Lahad moom te si diggante sëñ Abdou Lahad ak sëriñ Saliou yaa yole rek ak lisina amunu dañu bokkandoo génn kër su ma xëccee sëñ Sall ma xëy sëñ Abdou Lahad day gën neex rek. dala dooleel itam si li nga xamante ne mooy euh, màggalub sëñ Touba. waaw waaw xam nga man damay wute rek jox ko dañu la yow yow ku góor ki jógal nga wuti jox sa soxna jigéen jee war yar mooy régler góor yoonam nekkul ci yar dañu la wutal rek jox ko man la ma koy jox man ma koy dugaleel fa ma neex c'est la ma bëgg ndax defalu ma ko ci ay kii si si bu ma gërëwul su ma ñëwee màggal nit ku nekk am nga say mbokk am nga say xarit soo ñëwee ñu fekk léegi leen defal teraanga soo amee si géwél may leen dara parce que loolu mooy diggante ndax nak ko amul géwél nag sa àdduna amul njëriñ ah. yaa may dégg ndax ndax kenn ku ne bëgg ku lay ku lay waxal ay jaloore. dina fi nga sokkee ko. non non lay wax si la nga doon yonent bi salaa salaam yàlla daf ko tagg mais ci jikko ji la ko taggee wala na ko taggee ci leen ci taar bi ci yooyu de Yuusufa gis nga gis nga gis nga ni ko yàlla wax ci alquran alif lam ra tilka ayatul kitab mubin inna anzalna quranan arabiyan di ko wax yu mel noonu mu ne mais yonent yonent bi salaa salaam da ko wax wa innaka la ala xuluqul jikko ji la wax waaw fekkee ne man dama juddu Euh, yàlla dimbale ma ba mu tudd Mouhamed war naa gërëm yàlla kon man war naa mën a war naa mën a sant yàlla mais cant googu yëpp nag sax baax na mais daal mais daal sant sëñ Tuubaa sant la sëñ Tuubaa si bisam bi moo gën ndax dafa ni sama bis bii lépp lu ma ci waay defal lama yàlla di sédd ëllëg ñoo koy bokk waxul dama lay fay de ñooy bokk te man bëgg naa tàbbi ci ci ci ci bokk guré googu loolu rek mooy indi màggal gi ak yu mel noonu wante màggal doo ñow euh, euh, di def feet na da nga sol yëre yu bon wala nga ngay ngay ngay takk përëm wala yu mel noonu foofu bëggoon ñëw parce que comportement am ñu bëri ñii dañ koy ŋàññi ñu si bëri tamit ne am na droit fësal li nga xamante ne mooy mbégteem euh, si bés bi mu nga xamante ne dafa màgg. non euh, euh, damay bëgg damay bëgg ni ñu soxor ñee gën ñu baax ñi. <laughs> loolu garaaw na de papa. ñu soxor ñee gën ñu baax ñi rek soxor rek la su la dimbalee nga rafet mën a takk wurus. neexa photo wala neexa photo jaay. tagg jabar ji xëy na amaana xëy doo neexa doo neex ku nekk wante daal bi ma am baax na moom. Ah, gis nga waxuma la jamaa sax dinaa ko solal nee naa la nee la nee naa la adduna laa koy wàcceel ne wala déggule ma la wax. mën nañoo xaar lu ne suba daal. bu suba addunaay wàcc. suba addunaay wàcc. gis décoration bi mise en place bi macha allah xam nañ ne bu baax euh, ren gën na yokk par rapport ak euh, daaw ak yeneen année yu passé Sëriñ Tuubaa dane sama sama tey gàcceel na sama démb loolu rek la comme man damay taalibeem bis bu jot rek ah sama ne kenn gàccal gi yëpp may ma gën di avancer ndax loolu rek moo si nekk soo soo nekkee ci dara doxoo rek seetal ci li nga nekk ndax tànkee yaa ngi ci li nga nekk yaa ngi dox te ñu ngi wax rek maa ngi dox li ma yor fekkoon ni sax mos naa fi toog dégg benn xale wax naan way alal réew man réew fi dafa am moo ma koy jox ki ko jox yor dara xanaa soo yor dara da ko jox say mbokk wala nga jox ko say rak man ma juddoo ràmm dama judd rek dox de nii rek li ñu ma gisee <laughs> ma ma juddoo si ñaari ndox ah <laughs> si dex gi si géej gi si diggante yooyu laa juddoo nii rek li ma gisee wante ndokk ba nga xam ne mosu gis ma naan sàngara ma def lu yàlla lu yàlla bëggul loolu rek mooy li am solo li am solo daal ba am solo mooy Serigne Touba nee na Seex sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxa ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi ñu ngi koy dollee gërëm di ko ñaan yàlla dëbb ko wér may ko kattan euh, bàyyi ko boppam euh, euh, jël jël jël la mu jël ruwam googu jox ko sëriñ bi yàlla ko sëriñ bi téyel si anam gi nga xam ne moom moom moom la ni mu ko gën a bëggee te ma ñaan mu yàgg fi ah ndax ñun moom lañu ñu am moom la ñu ah. te yaakaar gi du ay lambaatu làmbaatu déedéet koo gëm déedéet dafa ne nikk téye ndax moom tey jii su Serigne Saliou Mbacké ñëwaatoon walaay dina kontaan sëñ Bassirou su ñëwaatoon si ginnaawam dina kontaan euh, sëñ Moustapha Bassirou su ñëwaatoon dina kontaan ndax moom ci mi ngi ci lu mu nekk rek li mu nekk jógu ko wàcc ko béyoon mi ngi ci li mu nekk rek moom daal mi ngi ci ihdina siratal mustaqim kon ñun ñaan yàlla yàlla yàlla dëgëral ko yàlla bàyyi kook nag soxna mbokkam moom ñu soxna Bali Muntaxa nga xam ne mi ngi ci ginnaawam rek ah di ko liggéeyal si anam gi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal si jaam yi di ko liggéeyal si si si si Touba di ko liggéeyal si biti di ko liggéey si si biiram taxawoo ko temb rek ak ndeysaan ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo ko wër wante daal li ma xamal mooy bi weer bi teewee rek léegi jàng nañ fi ñaar fukki kaamil safara ak léegi fasa safara safar ak léegi jàng nañ fi ñaar fukki kaamil ak juróom bu subaa ñu jàngaat ñett mooy ñaar fukk ak juróom ñett mooy mooy suñu lim gi ñu def ko hadiye si ñaan yàlla mu nangu ko gën nga nangu ful ko gën gi ful jagle ko ruux Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mu suñu hadiye si moom su loolu weesoo nag dañu indi ay kuréelu xasida ñu xale yi ndaw yi ba ci mag ñi indi Sam Fall ñu defar ñu zikrullah kalimatul xaq su yooyu passé ñu defar añ yi defar bernde yi su ngoon gee ma bàyyi soxna si recevoir ay ganam ak ay ñooy ak Sénégal jaaxleeti ndax ci ndax amaana ñoo xam amaana ñoo xam ne son seen sago ñu sol ko dem si si place Majus yi di ko fa fooyee wante deful loolu moom daal dina ko dina sañse ah, ah, ah yàggaayu ndax sëriñ bi ndax. ànd nga si daal. maa ngi tamit tala al badru alayna min shariatu wa yonte bi saasam bi mu ñëwee jógee mak ñëw lu nekk xew na fa ah, lu nekk xew na fa man dama xamul lan mooy problème waa waa Sénégal <laughs> seen problème daf maa jaaxal nag man du may bëgg wax sax ci yu mel nii wante nag ma laaj loo xam ne daf may intéressé boo tax may may wax ñoom daal nañu fexe ba am ko baax koo xam ne su bis sëriñ bi ñëwee mu taxawee ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup